bëgg nañ leen bu baax a baax di lay ziyaare Gétto Baye Zal Sow Baye Zal Siteu mon mi maa ngi lay bëgg di lay ziyaare ah ah loxo yi ci kaw. ah waaw nee na ko yow rek la ñuy topp déggal njaago rek la ñuy topp la wax nee na njaago rek la ñuy topp. daa wane jom diggante ma Pokola ñëpp ne woon moo ko mën aller mu ñëw wane fulla wane jom wane fayda moo tax xale yi nee nañ ko njaago rek lañuy ñuy topp njaago baa ngi noonu du si njaago bi fas la war mi ngi ñëw njaago bi fas la mi ngi ñëw njaago bi daa kagulu njaago bi daa kagulu nee nañ ko njaago bi lañuy ñuy topp njaago bi kagulu ñëw ñaaw njaaga mi nee na tàccu leen déggal loolu lii rafet na Zal Zal ñëwal nii am nga ko fële ñëwal nii am nga ko fële ma foofu njaaga mi rek la topp la wax aha waaye abonné leen topp leen li TV abonné Mor Diop loxoy ci kaw ca loolu dëgg la moo gaay ko ngeen di topp ay Ndiago bi la ñuy topp ñii moo gaay ko ngeen di topp ñii moo gaay ko ngeen di topp ñii moo gaay ko ngeen di topp ay Ndiago bi la ñuy topp police ngi noonu ñoo encadré ki nga xamante ne mooy liis doomu jàmm gi ngi noonu soutenir ki nga xamante moom mooy liis tey xam nga ni Siteu bu fi nekkoon day ñëw magal ko Mama Lamine su fi nekkoon dafay ñëw magal ko waaye du jombul dana ko fi gis taqe gis fi ki nga xamante ne moom mooy Abu Ñaase ndax ñooy seeni mag sama xel dem na ci ki nga xamante ne moom mooy caatu foora sek ak Ibrahima Dumbuya ya njaago yee buntu bi bloqué na de buntu bi bloqué de lan moo bloqué buntu bi noonu waxal ak mu jox ñu buntu normal lamin jox ñu porte bi lamin Mbow jox ñu porte ba jox ñu li xew ci porte bi jox ñu li xew ci porte bi Boucar Ndiaye maa ngi lay bëggee Bokar Ndiaye maa ngi lay bëggee di bëggee Mor Diop bàcc mbeng waaw nee na ñaaga bi la ñu topp baa ngi noonu dugg si mu ngi noonu ànd ak Tigre Junior moom Liss Ndiago mu ngi noonu dugg si na ànd ak waa Diamaguène ak manateeram Aline Gueye sëñ Fallou maa ngi lay bëggee di la ziar Lamine maa ngi lay bëggee di la ziar gars yi nee rek la ñuy topp yàlla yàlla def ci réew mi Abdoulaye Albourakh Events li mu def doy na waar waaye sécurité bi ma fi gis tey musuma koo gis fii waaye di gërëm commandant Diallo commandant Diallo ngi ne wax dëgg yàlla di ko gërëm ndax bëgg na jàmm gën bëgg na jeunesse bi ndax jeunesse bi lii rek la ñu am bu ñu xewlee ay ay kilifa taxawu leen ba liñ bëgg a def mën a yàgg waaye noo à la violence Lamine Lutte TV di ñaanal buzz suñu borom defal ko jàmm di ñaanal buzz moo mën ci réew mi moo njëkk a ñëw waaye moo mujjee ñëw ci réew mi waaye gën a yaru gën a dal gën a bëgg liggéey bi waaye gën a silwise gën a am diine gën a am lislaam muy nit ku baax nit ku sincère muy bës nit ku dëggu nit ku ñu bëgg lool ñu lay ñaanal suñu borom defal leen jàmm di ko ñaanal bu baax a baax man suma xarit la man daf maa bëgg. jàmm gën nag bu xewlee. deretu jàmm gën la. dëgg waaye nag nit amul lu dul dëkkam. ñun am nit amul lu dul dëkkam. waaye Siteu ñu bari ñoo ngi wax. waaye Siteu su ma rakk la. su ma deret la. yaayam moo ma bëgg. moom mu bëgg ma ay maamam bëgg ma. kon moom boo nee bis. muy bëre roi des arènes. barke Alxuraan dama koy jàppale. dëgg la mais bu jeexee. sañ nga ko bu jeexee jeex na. mais Lamine ma lay ñaanal. sunu borom defal la jàmm looro looro bi. ndax yow askan wi nga bokk. kenn gënu la. askan wi nga bokk. dama leen a xam avant ma xam bës yow rek laay wër. kontaan naa ci moom koo koy fàllu fàllu bu Siteu moo ngi noonu ay waay lii rafet na dégg loolu waaw ndeysaan loolu rafet na booy nag foog ngeen foog ngeen tàccu cinq minutes ñu mën a noppalu booy il faut yàgg liis a ngi noonu liis a ngi noonu moom ngi noonu liis a ngi noonu liis njaagoo ngi noonu ma ngay saafonte ak ay supporteram liis njaagoo ngi noonu moo war a bëre ak Zoss borom Zoss borom soos soosaat borom ñam ñamaat capp cappaat dimanche ndax dina capp cappaat loolu daal dimanche lay leer digganteem ak Lewis ndax day dóor dóoraat wala mu ñam ñamaat Zoss nag Lewis a ngi noonu bu xatee rek nag yéena bu xatee yéena de yéena ko tar ah. Liss njaagoo ngi noonu bu ci ay ndoxam dëgg-dëgg dëgg-dëgg dëgg-dëgg jërëjëf Tigre Senior Tigre Senior wax nga lu am solo waaw bu xatee rek yéena de

ci yàqu la jëm Zal policiers yi yi takk rajo moom lan lañ da ci am ñu takk rajo am ñoom duñ takk rajo. rajo téléphone bi amul ah, ñooy joxe ordre yi. wax rek téléphone bi foo ko fekk téléphone bi day wax rek. am ah, si ñoo xam tijjil ma day fay de. lii sa ngi noonu ma ngay suuru lii ngi suuru lii sa ngi suuru amin ndongo bu ndongo bu kuwen ñu ko yàlla boole defal. Boylo Pape Thiam Georges Mendy Fatou Niass lii sa ngi noonu doom day maa ngi lay fay bu baax a baax a baax lii sa ngi noonu suuru na ba mu yàgg mu jóg ma ngay suuruwaat lii sa ngi noonu di suuru lii say daa soppe quoi ah. kanam gémmiñ rek ngay gis ci moom gémmiñ ak tuuti bët loo bëgg yàlla na jàmm yow sama xarit nga loo bëgg yàlla na jàmm dama laa bëgg waaw waaw waaw